mu ne ko umul kitaab mbër mi koo doon tëril ma say maam barhama yaay ruuhul azam sidi barhama noonu la noonu la ko toppee noonu la ko toppee ba ay ñun ono ba mooy waañ màkka mu ngay dénk doom yi saxol na roy ci yéen xoolal mu topp bàyyi mu ne balaa war a tàggu waa kër ga ba war ci tijaan façon wu ñuy wax la bàyyi wax tijaan dal di doonu bu rax mu ne ndongo yaa ngay noddu gis nga ni dina loolu seen sunna la bu ñuy tukki ñaareel balaa oto bee départ dañoo benn taale bi ne ko noddal li ma wax si Xasan xam na ci dara buñ jëlandoo ba xapp ci pono yi xoo benn taale bi ko noddal bu noddee rek ba pare ñu départ moo tax mu ne ndongo yaa ngay noddu malaaka yi si kattanaan bàyyi dañ lay gunge ñun ba mu ne bi borom war a tàbbi biir kaw la ndaw lu nekk xool ñu ne ko maaye bu la xew mu ne mbedd moo seen nit ñi dëndu jëm fa war am mu ne bi baa ji romb kars bi baa ji romb marsa kawlax la nit ñi jigi njaay ma marsa te ñuy wuti gaar ba bàyyi dugg ca saxaar ga pare pour jëm si kaw jëm si Dakar bi mu ne bi bàyyi di wàcc tijaan fa gaar ba daf maay sama nday keroog yow yu pas wuram seet xoolal français yim làkk foofu chef de gare bu jóg la jóg na laxa saa yoo te naan pare leen grand marabout bi bonjour muna ne sangara ma sanga naan doucement marche leen ko yon dah mu delloo. Dakar jaar ci gouverneur. moo tax mu Dakar mu ngi naan pare leen sikara ñu dem ca gaar ba alaaji Mar kan borom kër suñu maam suñu yaay soxna Seyda Mariam Niass ko fanam ci barke gouverneur Baye dafa ñëw ne ko nag dama la yëgal na yàlla xebal na ma màkk Ibou Diouf ay wax dama waxuma mu ne gouverneur bu rot ci pilimu wurus bindal ko passeport naan ko doo tardé màkk gouverneur maa ngi lay siinul pak pak Canada sans fil ne na mu ngi portable yi boo ko Ibou Diouf di wooye booba téléphone fii la xamagu ca kaw ñu ne kenn rek xamoon téléphone fa mooy Baye Baye mu ne gouverneur bi sax bu bëggaan a téléphone fii lay ñëw téléphone fi loolu yaakaar naa dégg ngeen ko ci kaset bi wala si Abdourahmane bàyyi fi jamono boobu téléphone bàyyi ko xamoon kaw la état bi buñ soxlaan téléphone sax bàyyi bu nu suma néeg la ñuy ñëw fii téléphoné fi te koy bu jub mu ne booba mu ne gouverneur ko maa ngi lay séntul papp Canada mooy bato Canada mu ne ko sans fil nee na mu ngi ca ndox fil du mooy portable mu ne ba Canada di Costa Ndakaaru semaine yi ba noddu capitaine ba naan nayu leen ma Sidi Bara wëy bay wëy pièce ci biir oto bi bi ci pièce ci bato bi mu ne bi bàyyi di rentré sa bato ba machine baa bàkk roulé mi naan rëbbul jëliin comme papa ko naan ñaanal ma yow saati zaman bu ma neer ci géej gi golfu gouverneur wax bàyyi na ko li ma jaaxal dee ren nga bëgg a aji mais golfu dafa woy géej gi te ci la bato bi war a jaar bàyyi na ko ñaan yàlla ba yàlla ma ñaan naa motewi juuna bi baaji rentre sa bota ba la karaama ya feeñ nasaraane keroog yémmee sidi bara mu ne gol fu dafa tibba soppeeku ba mel ni précar fortul jaami xobbi doo mas gol fi noonu way nekk da glace bi bàyyi dugg ci bota ba rek ci la ci la ci la géej gi tas nekk di ndox moo tëgu ne ko mbar mu xem ne gol fu ku ko tàggat gisuma lu lay galam diggante fi wàccu xeesa sidi barak amoon na xaaru yi raak safa ak marwa keroog bañ keroog bàyyi keroog lañ nekk woon ñëw na kañi barak amoon na borom basiir yi xam nañ la bàyyi laal xaatir yi yaa di min ba sidi barak xam na a Ibrahim Ibu Diouf ne ko bàyyi suuf si mi dina dugub boo ko jiyee lu mooy focci dugub mokk boo ko jiyee lu mooy focci gerte boo ko jiyee lu mooy meññi gerte suuf si mii ne jiwoon nag mu suuf si mii ne sañ fa jiwoon mu yëngu tell moo xam lan lay roboon ca Madina poccat maa bàyyi parce que yéen dégg wax ci ñi ne ko maa ngi bëgg a mun a ren mooy jóg dem siyaara ji daaw ren mooy bàyyi daaw mooy yëngu tell Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dëppaat bàyyi bi mooy dem jaar na faas mooy dëpp jaar na fa ibi jum na ko bokki tànja bokki bur saxet ana waa baraada ali rasil gëm na yónneen xasida bii la ko tëji te mu nga poonuwaaroo Kawlax rombu Kawlax mu ngi topp bàyyi ci xaj Ibrahima ji fu mu nag wax na li muy wax dem génn ji àddina ci rip comme ni ko Abdourahmane da waxee ci tëgg ku sa sa sama nday na ma las kendëri yëpp farañkar ne ibnu samba xam na ñu ne nag ne Ibou Diouf moom kuusi lañ ko suul waaw xam nañu wax loolu waaye xabru bu bàyyi ànd yaa ma faal soxnaam ci heure loolu mbuum baa ngi gudd bàyyi di xuus ba ci xabru bi ne tëgg dee kanaa dañoo xamut kiñ fi sul bañu ci kungum mi nii ñu indi yeneen wax ñu ne kóosi lañ ko sul xar jamono loolu la xam waaye ñu ne liñ ñu xamal ak liñ ñu wax mooy tëgg lañ ko sul bàyyi maam ala bàyyi laa ji Ousseynou Niass coobar yàlla ñu na ma mu ne bi bàyyi di seeti maam Thierno Ka ca Sabax Ndiaye nga xam ne maam Thierno Ka moo jur alaaji Ousmane Sabax nga xam ne Sabax googoo côté boo faral maam Ibra Fall juddoo yal na yàlla yokk leen taaf ñu ci barkeem Fall mu a bàyyi bàyyi laaji suñu mu ne woon dafa bëggoon Ka mu ne xamul tax mu bàyyi bàyyi laaji dafa jaar ci raw na ibu jiw fii gestu leen bàyyi jël doppam bi rukk rukkal ci du ci xabru bi ne ko Ousseynou mu ne ko wullu yàlla xàq na ngi nii ñaan leen lu ngeen fi ñaan yàlla dana ko nangu waaw Cheikh Ibrahima mu wax loolu te moom ne garde ibnu Samba fa garde sirru bu sirru ibnu Samba Diouf Ibou Diouf fa topp yónne li ma gën a yëm ci moo leen xaasi bàyyi ñes yi kenn ku nekk Ibou Diouf joxoon la sa wàccuwaay kenn ku ne maa ngi war a ibi maa ibi jox na sa wàccuwaay te yonent mu ne anziluu naasa manaazilahum wàccee na ni seen wàccuwaay waaye xoolal wax ji wax maam Abdou Niang maam Abdou Niang murit saadex bi foofu lay tëjee ci ci xaas yi su ko defee ma jox sëriñ bi. moo tax xaase mooy chambre de commerce moo leen di fal hiliman ñoom xaasi bara am maana Serigne Aliou Cissé directeur la passé na commandant moo leen di may permis waa kër dégg nga de ndax moom la bàyyi daan moo nekkoon moo daan bind ijaasa yi Cheikh Omar Touré koy sa colonel école militaire yaa yor école yi waa dafa amoon doole ab kattan mën a liggéey mën a bay na ngono acela miwinyo bay mar toduma ko dural gamo tawa walo mo netali dum koy wax manaw ngi sant ñes lu bari ñu ngi tok mu na bay nañ ci tari ba ñesan ba wacc nit ñi di sangu yag ci wono gi bayina selel ñi ci wono gi ñu gaaw sangu ndax ñi mëna yek reer yi Baye Maar mu ne biñ ñee fekk maam Cheikh Omar Touré mu ngi toog fi mu toog tim siwo bi mu ngay nelaw sonn bay nelaw ñu ñëw wax ko Baye na ko Baye Cheikh Omar Touré moo sonn bay nelaw Baye ne wër leen wono yi kon xam na ku dee Cheikh Omar Touré mu sonn bay nelaw xam na ko dee te Baye Maar ne ne bay waree wono nga gis nañ ku dee moo tey bu jub ko koy sa colonel école militaire mu ne Cheikh Ibrahima Fall entrepreneur la moo la xaati barham moo la doxal gaa yi fëkkër seeni barham maa ngi faal yàlla may ko sens lool mu tarbiyal yaayi Mawlana Cheikh Ibrahim ñenn ci soxnaay bàyyi mu tarbiyal leen moo tey bu juf na ko xaalam bu barhama dëgg tànkam bu ko yéexee faal warlu naa nga wutu foofa di bara ma ndax Ibra Fall da jàkku tos nga surtout jóg ci naar ba ru sam-sam dañ la roose si di bara am ne bagg raasa nga ko jàlle mu daagu eliir Ibra a ragal boromam si di bara am ne man ragal borom bangi si di bara am ca pays Sidi Baram Ordalia fa moom lay jaare ko mooy bay bay ñes yaakaar bépp ordre boo xam ne war nañ koo tëral fii ci réew mi assemblée nationale lañ ko waxtaane décret buñ fi génne assemblée lañ ko waxtaane mu ne Serigne Baye Niass moo ne député na ba pays Sidi Baram ndax ordre fa moom lay jaaree nañ si yàlla bàyyi nañ def lii nañ def lii moo tax bàyyi noonu Serigne Baye rasu sax bii Serigne Baye mooy bopp sama taalibe yi mu ne Ousmane toog ca kaadar ba moo leen di rappel laa bi yaa mandu yaay ñiiri barham mooy Ousmane Ndiaye mooy ñiiri barham ci moom la ñuy réglé dossiers yi kayit yi kayitu yi. mu ne ko Sadar soxna Mourid Sadikh bi secrétaire bi merci moom maay bindal wax ji maay wax moom moo ko daan bindal. Sadar soxna Mourid Sadikh bi saddaqul amin man di nga leer jugal sabal. Saadix na murid Saadix bi yama ma xàllal bu bu do na ko gal dal so ne ko baba hawa bi tey cëpp si ndender len mu ko baba hawa nga la bi for ya de ingénieur yi waa Sidi ba ya kana ingénieur moy ni moy ni tale ah walu, yoon ak yooyu ñu ya kana non lam maram nga ne gelam cha barham yaada pi wa da sidi barham ni la ko topante ci khasi ni la ko topante ci khasi kenn ku ne mu jox sa wati wàcc Cheikh ibrahim xoolal mak ñooñu nga xam na ñoom la bàyyi dajale won na len dama bëgg ngeen ando ando bo xamne ne qiyam bu Ibra Faal jitu ñu ubbe ko tu àjjana mu na du dugg te Ousmane Ndiaye ñëwul ak Serigne su sëriñ Baay jiitoo suñ ko bulee mënu duma dugg mukk te Cheikh na turu ñëwut ak carlaa sa dem alaaji laami noonu maam abdu ñëw noonu seexu sa dina tax seen maali sow ci gire xaalis yooyu xam nga bàyyi xurafaa arba yi ko wóoroon suma kalaas gi ñu lañ xam waaye gis nga bàyyi mu ngi ponkal yoo xam ne ci biti ku ci mel ni maam abdu bité yi bata maam abdu jaase bambu gaar ibu ci mun a fan nañ leen commande jox leen sewetaas ñu ñëw waxal waxal bàyyi li ko naqari ci dund seen dund rek yow buñ ne la yow doo xend yow doo xend yow booy ba pare. kon ñu ngi sant yàlla ci bés bu baax yal nañu yàlla def dëgg-dëgg taalibe bàyyi yal nañu yàlla def dëgg-dëgg taalibe bàyyi yal nañu yàlla may bëggat ci Mawlana Cheikh Ibrahim nañ bëggante. te yàlla tax nañ soppante te yàlla tax Ibrahima Diouf nee na sopp leen seen mbokki xaarif yi ñoo seen doomi bàyyi jëfee sarihatu moo neex si di barxam bàyyi nag mooy borom kër gi soxna yi ñooy muqaddam yi njaboot gu soxna yi jur na ñooy ñooy taalibe yi géwél yi nag daan nañ woy ñu ne ku ne doomi bàyyi neexut dangaa gisu ki nga bokkat bàyyi nga jiwoon moom ñun ay doomi bàyyi lañ leen lu ñuy xiiru lu ñuy ŋaayoo lu ñuy boddante jaru ko fi bàyyi ñes moo yor bagage bi moo ko moom kenn ku nekk na nekk def seetu moromam xoolal démb rek acte bi bàyyi mbay yi def caatam Cheikh Ibrahim yal na yàlla guddal fanam te dëgëral wallahi oo naa ko tey téléphone ma ne ko sëriñ bi mun a ma ko liggéey bi nga liggéey jëm mun a ma ko man yaakaar naa ne est-ce que ñooñ Badar sax liggéey nañ liggéey ba waa ak wala ñu wala ñuy Uhud parce que dara gën te neex taalibe ba yoo xam ne seen xaal dëppoowuñ neexoowuñ seen maqaama dëppoo neexoowuñ nga fexe ba seen xaal dëppoo fexe ba seen maqaama dëppoo ba seen bëgg-bëgg yi dëppoo loolu dëgg liggéey boobu dëgg na ko rek loolu rek jaroon na bi yëpp ñu ñëw leen ñu ngi ñaanal suñ xalifa Cheikh Ahmada Tidiane yéen nañ ko gis gàmmo tay ba ñesal ànd ak gu kàkke nag ànd ak wét gu mat sëkk ci barke Baye barke Cheikh Tidiane barke yun ci Yàlla Muhammad lépp lu mooy tawat ci jëmmam jële yaa rabbi ya allah yow yàlla yan nañ ko rocce ci barke Bañes mu ñëw fii fekk si fi taalibe yi nekk ci jàmm ñu ngi ñaanal xadra Cheikh Ibrahim yëpp waaye sëriñ bay encore une fois ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan suñ ànd dafa yàgg man ak moom boo mu ci Oustaz Ismaïla Ka te li ma wax Ibrahima mii xam na ci dara man maa ci bay Ousmane Diawo ñu nekk da ay maj sebi ta kat booba kenn amul soxna booba xaat bi ñu doon dund garaaw na ku ñu gis léegi sax doo jàpp sax na ñun xaal boobu daan nañ te fekk na àggu ray gudu diggante kër yaroo ko jam diggante ñooro kër banjubu dartaare kër suley caam wen ciiwi dëkk yooyu yëpp kon ni ko bàyyi mbay waxee ci bàyyi eh, fóode dëkk yëpp dëkk yëpp rajaxe nañ ko dañ koo rajaxe te fuñ ci daan dem dox la ñuy def Cheikh Oussa Ismaïla Ka ak bay jaaw dong buy dugg oto la doo war a saret ñoom ñoo caay dugg saret wala oto waaye ñun ma sib la ñuy dox waaye boobu yëguñ duñ yëg xiif duñ yëg cooro duñ yëg dara ca booba laa ko xam te na ma ko xamewoon ba léegi noonu laa ko xamee laaj ko mu ngi du ma dugg Ndakaaru ba génn te aksuma ci moom yii daal damay dugg Dakar sax makaar ba adara waa jëla ma ne ko sëriñ maa ngi ñëw foofu foofu foofu lay li tax maa kaana lillaahi daama wa tasali wa maa kaana li xayri laahi in qatawal xasa lépp loo xam ne yàllaa tax day sax day jokk waaye lu dugul yàlla loola du kon ñu ngi ñaan yàlla guddi gii man moom xam naa sas nga ma parce que li nga mooy sas nga ma mooy <clears throat> taaliba yi dañoo naqadee waxat te loo foo ko waxat ñu ne ah moom waay moom xam mu jot bu ñëwee benn wax bi laay wax ah waaye nañ si nañ sensé toppit waay te pourtant nag saatu jot kitaab de bu doon sàppee julli gën a duñ ko jàng rek ah faatitul kitaab bu doon sàppe ku doon julli gi na duñ ko jàng duñu wax iyyaaka na'budu iyyaaka nasta'iin ah waaye rek sas na ma ñaan ñu rek at mu jot buy ñëwee rek ndono la yàlla diggan di am ci jamono bu nekk maa ngi gërëmaat encore une fois saakiriin yi nga xam ne dée buñ teewul rek danañ yëg ne am na lu fa manqué ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm Baye Ndiaga Baye Babacar suñ mag Baye Kébé Fodé Baye Mamoun Ibrahima Ka ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm leen ñu Baye Demba ñu ngi ñaanal jigéen ñi yal na yàlla barkeel seen i njaboot ci barke Baye barke Cheikh Tidiane barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp luñ fi wax ci njëriñ yal nañ ko bokk jëriñoo waaye lépp luñ fi wax ci juumte nañ xam ne doomu aadama lañ dañuy juum nañ ñu nangul juumte googu àngaat loolu ak ku ko mën a dégg ak fu ko mën tëkk déggee nag ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi ñaanal ñëpp yal na yàlla defal ñu jàmm yal nañu fi teew déwén bu aaxiru daawaana alhamdulillah kullu aamin wa antum bil xayri wa ana bil xayri salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi ñaanal borom rajo bi tamit mu ne ñu ñaanal ko yàlla borom rajo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla yokk sa matériel yàlla wéral la kattanal la dooleel la ci barke Baay yàlla na nga dema dema dema dema dem ba ku am programme Dakar fii xelam daj la te lépp lu ci am yàlla na nga ko muutu yàlla na ko moom ci barke Baay salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilah